ni ngeen ko bëggee noonu lay deeme fa ngeen may seen tuumal foofu lay jubal di ko jubant di ko jubant bëgg naa leen tur bi naka la Moustapha noo gisee gouvernement bu bees bi nga xamante ne sos nañ ko dem ah gouvernement bi de wax dëgg yàlla gën a la jegeel micro liñ ko liñ ko gisee nii ah xamul gars yi daal xam na leen xamul leen waaw ndax Sénégal changement bi bëri na te Macky tamit gouvernement bi daa mel ne tamit ci ay mbokkam la ëppee waaw li ma gis démb man mii si télé bi ay une heure du matin ay deux heures du matin presque gouvernement bi daal bëri na trop trop trop suñu si moom daal waaw te len daal laa bëgg si moom daal surtout Matar Ba ñu ne ay jeunes lañ tey sant yi Coupe d'Afrique bi mi ngi ñëw. Mhm. ci sport la ñuy wax ndax ay jeunes lañ sport la mën a wax. Mhm. politique moom. lu ñuy wax du bëri waaye ci espoir la wax dal ma mhm. Matar Ba dal leneen la leneen lañ koy wax quoi ñu ñun ay zone mhm. pays beuri Afrique yo xamne ñi ngi diirante ñoo mbagg mhm. am na ay star yu bax suñ match bi ni mujjé contre Maroc contre contre Mali gis nañ suñu star bi ni mel senegal pays football la lañ ñu defaral ay star yu bax d'accord ñi ñu leen bëgg quoi fiñu dem war a Coupe d'Afrique ay stade yu baax a fa nekk dégg nga suñ joor yi tëliwun dara waane buñ football Europe ci stade yu baax bu buñ ñëwee fii nii tamit di football si stade yoo xam ne nii kenn xamul ay stade la la tamit ñun mënuñoo ñun ñoo gëm loolu tamit te chaque jour ñu dégg ay milliards ay milliards ay milliards depuis 2000 ñun ba ñu xàmmee ak léegi ba tax 2000 peut-être li muy 20 ans yi mën na au moins ñun war nañoo am stade bu baax